julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ngi amat mbekté ngir fasiyene and ak yeen ben ci jotay yi nga xamné dañuy faral diko amal ak yeen ci sa bo xamanteni dara amna wala ñu sakku ci ñun ci yoonu ar yoonu gaay yu bax yi ak dindi ay leunt yo xam jombul ñang koy taf ca kawam tax na séminaire bi ñu amal nii di ci leeral lenn ci loo xam ne nii lu xam-xam wane la teg ko ci ay xel ñu war caa xalaat mu sori lool ak parparloo waaye <clears throat> mu tegu ci kaw xam-xam ci wàllu googu ci lañ ñël jël tomb boo xam ne ci lañ bëgg def suñu conférence tey suñu waxtaan tey muy alaqatu al ashariya wal malikiya bi tasawuf donte sax tomb moom lañ ko siyaaxa woon muy alaqatul malikiyati wal ashariya di tasawuf waaye xam nañ ne pas-pas la ñuy jiital ci wàllu jëf su ko defee léegi ni ñu bëgg planifier suñu waxtaan nii la ci njëlbeen baat yu ñu andi ci biir tam bi benn bu ne des na ca taxawlu ci xamle bu gàtt muy lan الأشعرية المالكية التصوف كن نيت يو ييب بن بوتي ني دا نجي تاخاو خامليكو بو ني خاملي اشعريه با نوبي ا آه، ديغنتيم ليكو لكالي اك تصوف سوكو دافاي ييت لولا lu ñuy ñëw la kon dañuy njëkk a tàmbali ci xamle ashariya bu ñu ko xamle it ba noppi xamle tasawuf bu ñu ko xamle ba noppi nag ñëw xamle li lëkkale seen diggante ci jamono ju jàgg ba ci jamono ji ñu toll waaye tam noonu noonu as bu ñu xamee ashariya xamit malikiya ci tënk xamit li ko lëkkale ak tasawuf su ko defee ci jamono ju yàgg ba jamono ba ci jamono ju ñu toll su ko defee ci mujj ga nag ñu bàyyi xel yi ñu xalaat kenn ku ci ne euh, jëf loo xelam euh, feeñal lépp loo xam ne lu ñu waroon a wax la te waxuñ ko wala loo xam ne waroon nañ ko bañ a wax te wax ko su ko defee incha allahu taala ubbil nañ mbokk yi bunt yi yëpp kon ñu njëkk a tàmbalee ci ashariya ci xam ne bu gàtt al ashariyatu mbokk yi dañ ko askanale ci imaam bi ko fondé muy abul xasan al ashari abul xasan al ashari bu mu ñu xam ñu wax ne aw askanam mi ngi yem ci dem na ba ci assahabiyul jalil muy abu musa al ashari kooku moo sos madhab bi moo tax ñuy askanale madhab bi ci moom di wax al ashariya waaye ashariya madrasa islamiya sunniya la maanaam école la boo xam ne école la bu tënku ci sunna minhajam mi ngi ci topp ci wàllu aqida minhajam ci wàllu aqida lu bari ci fuqahaa ahli sunna wal hadis moom lañ topp ittabaa minhajaha fi l aqidati adadun kabir min fuqahai ahli sunnati wal hadis maanaam ñi nga xam ne fuqahaa lañ ci ahli sunna wal hadis moom minhajam lañ topp ci wàllu aqida te itam nag seen giseen seen jubluwaay ci wàllu pas-pas bari na ñoo xam ñoom ñoom ñoom ñu moom lañu ñu dëgëral kuréel bu ñu ci borom xam-xam yoo xam moom la ñu dëgëral bokk na ci kibaaru ay may yi nga xam ne nii ci ci ay may lañ bokk ci ñooñu noonu albayhaqi ak albaqilaani al imam al qushayri al juwayni al ghazali ak alfaxrudi alfaxar arrazi niki nun annawawi ak suyuti ak iz al iz ibnu abdissalaam ak attaqiyu subki ak ibnu asakir ak ibnu hajar al asqalani même ni ibnu aqil alhanbali ak tongam bi ñuy tuddee ibnul juzzi ñun ñëpp ak ñu bëree bëri ñoo xam ne ñoom euh, foofu ñooñu lañ mooy ci ay kii waru ay may lañ bokk bokk na ci ñi nga xam ne nii ñooñu te ñu wax ñëpp mooy ñu représenté jumhurul fuqaha wal muhaddisin bokk ci chafian yi ak maliki ak ahnaf yi ak lenn ci xanaabil yi kon muy madrasa boo xam ne kat ñi ko topp dëgëral ko bari nañ lool mu nekk école euh, pas-pasam maanaam mi ngi istidlaalu ci wàllu pas-pas teg ko ci kaw ñaari misaan mooy an naqlu wala aqlu lépp loo xam ne sax na ci alquran ak sunna ci ay melokaani yàlla ak pas-pas bi ñu war a fas ci yonent yi ak yom ak bis pénc ak malayka yi ak nañ leen nañ xisaabi ëllëg ak mbugal may am yàlla nañ ci yàlla musa ak yool bay am yàlla nañ ci yàlla boole yu yépp dañ koy sàkkoo tegtaloo ci ay tegtalooy xel dañ lañu ci dañ koy jaa ak i firnde yoo xam ne nii yu xel nangu la ci dëggul la nga xam moo rot ci alquran ak sunna ginnaaw boo xamee dëggal nañ ko te gëm ko ba noppi waaw nga xam ne kon foofu am na sew secret bu fi nekk du jëlee ci xel ab ate ngir mën koo jal ca kaw teg si ngir tawili ko déedéet du jële ci xel ab ate ngir yenn ko ci kaw teg si ngir tawile ko wala bëgg a wéel zahir bi bal dafay jël xel mu nekk mbindaan muy lëggéeyal zawahiru nusus ngir dëgëral ko sekk bokkuñu mel na fa dangay fab xel di di ci attee déedéet ndax diinu na mabniyun ala naqli ala ala munasabati al aql waaye xel dafay lëggéey ci zawahiru nusus boo xam ne da koy dëgëral kon jaarukaay yu yëpp boo ko dee xoolee la tax ñu jaar ko ci wàllu xel rek mooy am na faw ñu taxaw tuuti ci benn rappel historique waaw maa ngi jéggalu mbokk yi affaire bi moom nooy dem restre ba nopp mu naaw mais wax ne euh, faaw ñu am rappel historique ci li tax aqida pas-pas boobu ñëw ndax imam al ashar yi si kisàkka nettabliwu nettabliwuñ ci mi ngi mi ngi bokkoon ci euh, markasu ma mi ngi bokkoon ci aqida intizaliya ginnaaw bi la ci génn tuube téere bi ñuy wax alibaana fi usuli diyaana te itam ci détails yu gudd sax yoo xam nañu ko ci ni ko kilifa ko yoroon yaayam nekki noonu it ni mu bàyyee eh, aqida intisal yi misaal ko ci mbubb moom soloon futti ko sànni ginnaaw bi mu ci génnee nag eh, ñaari wax ñëw bi ñee déer bi mu génnee dafa ñëw ci mazhabu mën a ashari yi almasab ashari la ñëw ginnaaw bi li ci génn dugg ci ahlu sunna jamaa kon ku ku ca nekk ci ashari yaa ngi nekk ci lu primé ndax imam bàyyi na ko bu yàgg am ñu ne leen déedéet demewu noonu bi mu jógee ci i'tizaal dafa ñëw dafa ñëw direct ci aqidatu ahlu sunna wal jamaa ñu ashari bi nekkul lu may circonstance la bu xew ci jamono gis na ne mu'tazila ñu ngi giir lim bu bari ci julli leen yóbbu ci aqid i'tizaal mu bëgg leen récupérer tax muy ñu ne léegi mu indi ne kon te ñoon lépp lu sax lépp lu sax ci ci naqal mu dalilam ci àq la ngir récupérer julli ñi ba duñ dem loola moo andi aqida ashariya boobu noonu ñaa mu am ñaari ñaari mbir mbooloo ma seetlu ko ñaari kuréel nag kuréel bi ànd moom ci loolu muy ahlu tafwid ahlu ahlu ahlu tawil kuréel bi ci des ñoom téye seen bopp ci loolu ne ñoom duñ dugg ci ay tawil ak yu mel ak ilmul kalaam moo luñ tuddee ahlu tafwid moom lu borom téere ba di junñi ne fa kullu ma jaa bi lafzin yoo awilhu aqul eh, al imam al ashari ci ahlu aqida ahlu sunna wal jamaa la jël waaye loolu noonu nekkul lu may circonstance bu xewoon mu doon andi solution ca loola lépp lu sax ci naqal mu dal leen ci àqal euh, achanré boobu mu am ay xasaa xasaayis nag bokk na ca mooy day tawassut day lamboo tawassut ak i'tidaal digg doomu nan manhaj la aqadi wala pas-pas dafay digg doom ci diggante manhaj aqli yi moom tëralut waaye tam mu lamboo tawqifiya nga xam ne dafay dëppale diggante texte ak xel mu làmba sumaliya nga xam ne léegi day la day am marjan buy dellu ci wax ak marjan boo xam ne dafay dafay dafay jëfandikoo xel ak waqiya réalité waaye itam ñàkk a takfiir loo koo xam ne daa wute yow su ko defee it bi muy laata sos mazhabam bi moom imam al ashari traversé na état bi bi njëkk mooy def na istiqra istiqra bu ñu ko waxee mooy génne bi mi laata génne mazhabam bi def na istiqra moo ci jiitu mooy sàkko teewal mbooleem maqulaati firaq maanaam ci wàllu gu mbooleem wax yi kuréel yi nga xam ne ñoo jiitu woon ci njëlbéenu lislaam ak la leen gaar ci ay lënt ginnaaw ba mu classé wax ju ne ak ka ko wax euh, bu lëkkale koo circonstance yi am ci wàllu histoire bokk na ci yooyu ba tey ci fi mu jaar jaar istintaaj bokk te mooy xam wax ju ak mm, ci lan mooy maanaam wax ju ne ba ko borom bi wax lu mu ci jublu te ko ay seede ci seeni xalaat ci masala bu ne loolu tudd xilaaf bi jaar ci biir kuréel bi fekk am na xilaaf mu tudd ko su weesoo fu indi àtte bi su na jaar na ca bu nappee nag delloon raddu alal xusoom mooy ñi nga xam ne nii dañu def dafa dafa wuute ñoom ci xalaat mu radd leen comme ni mu di ndax def na def na def na ndax moom e, tasadda li raddi alal falasifa radd radd na mu'tazila yi contre contre leen e, dàq seeni lay waaye itam tasadda na ci radd alal falasifa ak qaramita yi ak batiniya ak ñu du ñoom ñu bari sax ñoo xam ne dañoo wàcc yoon radd na leen bu ko defee nag ginnaaw bi nag mu door a saxal mazhabam kon loolu mënees na ko ci asaira budi dee sofiya nag moom mënees madhabun islamiyun wala ñu manhaj la ya aw yoon la waxana suluk laj bo xam jaam bi da koy sóobu ngir man a egg ci yalla bu man a egg ci yalla moy xam yalla nak mi ngi koy jaare ci walu farlu ci jamu yalla ya ak lepp lu yalla ya tere ak di selal sa bakkan di laabal sa xol ci lepp lu jikko yu bon la di takkay ci jikko yu jikko yi ngene lolu ñu tasawuf wana moy jëfe la nga xam dal wala hasilu sufiyyu alimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamin ab sufi dëgg bu ñu ko waxee mooy ku jëfee la mu xam kon mën ngaa wax ne tasawuf nekkul lu may mën manhaj la yoon la bu jaam bii soobu jundal roxaaniyaat yi jëm ci yàlla yitte mooy xam yàlla benn te loolu xam yàlla googu mi ngi koy jaare ci yi may wajax farlu ci jaamu yàlla benn moytu tere ñaar sellal bakkan ñett laabal ab xol ci jikko yu bon ñeent takkaayal ko ci jikko yu baax yi muy juróom lu kuréel boobu la ñuy tuddee euh, mooy ahlu nga xam ne léegi ni iman amee xam-xam bu koy jàngale muy tawhid ni islaam amee xam-xam bu koy jàngale muy fiq noonu la ihsaan amee xam-xam bu koy jàngale tuddee ko nu la neex bu dee salaf yi mën nga ne ilmu xalaaq bu dee suuf yi mën nga ne mooy mooy tasawuf ndax mooy xam-xam biy jàngale loolu muy xam-xam muy fànn goo xam ne mooy fànn gu bari ay jaar-jaar la li mu traversé yàgg na li li gaañ kuréel yëpp gaañ na ko te mooy rax mi rax ba waral ñiy wax ci moom di wax ci moom lu dul noona léegi nak buñu xamé xamee ndax tasaw mom dañ koy dañ koy dañ koy xamlé non rek ngir xol ashari ni am lëkkaloo mom lekkelo bi jaar ci digënta sofiya ak ashariya dafa yàgg ndax bo xolé téré ashariya ak téré sofiya yépp seen digënta dafa am sila qadima relation bu ya bu yàgg bu jaar seen digënta motax abu abu muzaffar al isfirani ci téréem bi ñëw at at tafsir fi euh tudd na ci ben fasal spécial bo xamné on ba ci ci ba moy min fusuuli almafaxir li ahli alislaam wa bayaani fadaili ahli sunnati waljamaa wa bayaani maxtasu bihi min mafaxirihim léegi nag bunt bu bi muy leeral di wane ne mooy buntub ngëneeli lislaam ak leeral ngëni ngëneeli ñooñ ahlu sunna wal jamaa ak la ñu jagoo ci ayndam ci biir xam-xam yooyee ya nga xam ne ca la ñu dul ca la ca la gën ñu dul ñoom xam-xam yooyee da caa tuddaale tasawuf mu ne wa saadisuha ilmu tasawuf wal ishaaraat toujours maa ngi wax ci moom ba mu koy tudd ni ni boolewaale na kon reconnaissance boo xam ne def na ko ci tasawuf mooy ilmu tasawuf ishaaraat ak la mu lamboo ci ay xereñ ak réalité yoo xam ne ku dul ñoom mënu koo am ndax ku dul ñoom danañ ko xañ bànneex boobu ak cafka googu ak naflaay boobu ci bànneexu jaam yàlla ak dal ak am istiqraar ak wóolu yàlla hazul halawat min al min al min al madaqi ba tey ci bu yàggit ibnu al hafiz ibnu asakir ci tudd na ci tabaqaatul axidin anil ashari anil ashari ak ñi askanoo ci moom juróomi tabax yoo xam tudd na leen waaw ñi askanoo tabaxa ne mënees na jaa tudd kenn masalan bu dee ci tabax bu njëkk bi ñu jëlee ci abil hasan ashari eh, jëlee bokk na ci abu abdullahi muhammad al muhammad ñaare bi bokk na ca ñu jëlee ci ashari ci mooy tudd na ca ci tabaxu ñaareel boobu ci ñi nga xam ñoo jëlee ci ashabul ashariya mu tudd Aba Ali ad-Daqaq tabax ñetteel ba mu tudd Aba Dar al-Harawi ñeenteel bi mu tudd Abul Qasim al-Qushayri juróomeel kuréel bi tabax bi mu tudd ci Abu Hamid al-Ghazali waaw kon ñu ñëpp muy ñi mu fi tudd ñëpp muy muy juróom juróom yoo xam ne day na tudd euh, foofu ni ki ki mu ci tudd ma Ibnu Asakir ci ñoom bokk na ci ñi ci gën a bari lu muy saxal sifaat yi ci ñu dul ñoom man sifaat sifaat yi indi coow li bokk na ci ñi nga xamne ño gëna bari ak saxal lay wax sax man li bëgg wax ne sikk sàkk nekku ci juroom ñu ñu tuddu mu tuddu ci nga xamne tuddu na ci tuddu na ci ibnu asakir ci biir juroom ñu ñu sikk sàkk nekkul ci ne ki nga xamne mo gëna am na ci ño xamne bari lu ñu saxal lool ci yi ño ci ño ko ci ño ko ëppale ci ñoom ci ci ci aqida ashariya ci misal ko melni ibnu khafif ak ibnu ibnu abi dar al harawi waye ñu ñepp seen xam-xam ñi ngi ko tëgg nag ci alquran ak sunna waaw dëgg ay sufi ay sufi lañ waaye seen xam-xam nekk ay asaayira yoon waaye nag ñoom it eh, seen xam seen xam-xam ñi ngi ko tëgg ci alquran waaye tam nag eh, foofu nag ñoom ñu xam ne it nag lépp loo xam ne am rax la dañ ko daan bañ ndax xef mi wax ne ñun de dañoo sopp di tudd jamono yi suñu sa yang ya nga xam ñoo jiit woon ci alu tasawuf di ko xool ak li nga xam ne moom lañ ñi leen doon roy topp seen ginnaaw ci loo xam ne nii yàlla setal na kuréel kuréel bi ci loolu di wane ne kon léegi am na rax daal ba ibnu jarir at mi ngi wax ne sufiya am na ci ñoo xam ne dañuy wax ne dañoo gis yàlla ci àdduna ak àllaaxira loolu at mi ngi koy wax ila anna sufiya yaquluna bi ru'yati la fi dunya wal aaxira la Ibnu Xafiif daal di bi muy bi mu bi muy commentaire ci waxi tabari ji askanal wax li ci suuf dafa ne ab kuréel la yoo xam ne nii euh, dañoo bokk ci ñi nga xam dañoo réer rek ci waxi ñi nga xam ne ñooy sellal ci ñoom waaw di wane ne kon léegi pas-pasu ahlu tasawuf pas-pas bu sell la boo xam ne dafa tënku ci alquran ak sunna waaye lépp loo xam ne am raxla am raxla moo xam ne ni mooy lii ko ci kuréel kuréel bu ne rek niki noonu it nag euh, noonu la doxe ba Euh, ni nga xam ne Abi Hamid al-Ghazali dafa ñëw indi moom ci téeréem bi mu Ihya Ulumuddin indi ci diggante qawaayidu aqaid al-ashariya ak leeral lenn ci aay yoo xam dafa lëm dafa lëmu te muy xaw a mm, aju ci wàllu weex wahdatul wujuud yu mel noonu yëpp da ko leeral détaillé ko ci biir téere bi wuññi ci ay secret noonu la euh, tasaaroo relation bi jaar ci diggante sofiya ak ashariya ci kuréel yi ni muy soqi di bari di bari di bari ba ni nga xamee ne da ngay gis nit koo xam dafay askanoo ci abil xasan al ashari ci pas-pas askanoo ci chafian yi ci misaal ci madhab euh, askanoo ci suufiya ci tariqa ci suluk nga xam ne moom la borom ibnu ashir di wax ne fii aqdi al ashari wa fiqhi maliki wa fii tariqati al junaydi saliki jamono dox ba egg foofu xaj na ñe leen doon dal ginnaaw bi ci la cosaan mu tàmbalee ci ibnu taymiyata ba egsi ci Ehm, jaar ci dongam ba dégg nga mo jaar jaar ci Mouhamadou Abdou Abdoul Wahab ci nga xam ne ñu ñëpp ñett la taxawoon la taxoon ñu jóg di leen di leen radd ñi nga xam ne alu tasawuf dañoo gis ci ñoom xëy na ñu ëppal di def loo xam ne jàpp nañ lii ak bokkaale la moo taxoon ñu leen di xeex loolu loolu mooy mooy circonstance bi circonstance bi leen gaaroon ñoom waye tam ci la feñe ci lenn ci ay borom xam-xam yi asaayir yo xamne dañ doon taxaw di leen défendre ñoom di défendre di wax di wax ak ñom ci lolu waaw di wone ne ñom li ñi dem dañuy tawassul ci yent bi wala tawassul la dal legi nak euh, fofu ak ba ci la ci la ci la ciowlu lu ci diggante tawassul euh, ci ci reconnaître ñak ko tar yu mel noonu ci la ciowlu juddu am ñu kurel bu bari bo xamne taxaw nañ diko ko am irtibat bu dëgër ci walu tasawuf di défendre seen jëf bokku na ci ñoñe as-Subki nga xam taalif na bi ñu tuddee Shifaa as-Siqaam min Siirati Xayril Anaam bokk na ci Ibnu Hajar al-Haytami taalif téere bi ci al-Jawharul Munazzam fi Ziyaarati Nabi al-Mu'azzam bokk na ci ñooñee euh, ki ñu tuddee Ibnu Ashir nga xam ne téereem bi euh, tudd na ci euh, ci wàllu gu bëree bëri ci muy téereem yi al-Murshid mooy ala dururi ala dururi min ulumi diin tudd na ci lu bëree bëri bëri. noonu nga koy toppee rek ci El Bajuri yi noonu la niki noonu kon. pour wan la ne ba ba si bi nga xam ne achafiiyul madhab la waaye chadaliyul tariqa waaye achariyul aqida la nga xam ne kon léegi e, noonu sëñ bi sax yaakaar naa fu mu ko fu mu ko tuddee masayix yi sayiduna al jilani wa chadali ma ahu tijaan nga xam ne kon léegi bu dee ci fiq e, maliki la bu dee ci wàllu aqida achari la bu dee ci wàllu tasawuf junaydi la nga xam ne kon léegi relation bi jaar ci diggante acharia ak euh, sufiya dafa yag ndax li ëpp ci ñi nga xam ne jàngale nañ ko fofu ñi ngi yor aqida asharia am tam yor aqida sufiya boko ñëw ba ci biir réew mi it noonu la mboolem suñu ay mbay yi nga xamne ño fi nekkon di jàngale diine ñom ñepp boo lay ay ashariya lañu manam day seen ci ci wàllu pas-pas ba nopi nak yor um, tasawuf di ci di ci di ci tete di ci jamm jaam seen tire yépp bo xolé seen mu àllafaat yi dañ ci pàcc boo xam ne nii pàcc buy jëm ci walu Euh, wéetal yàlla la waaye dañ ci gis pàcc boo xam dafay jëm ci wàllu lislaam am ci pàcc boo xam dafay jëm ci wàllu ihsaan mooy rafetal ci li ñuy insisté ci wàllu tasawuf mooy ilmu suluk mm, daanaka man na mënees naa wax ne bépp taalif bu ñuy taalif mu jëm ci diine ak bépp waxtaan bu ñuy waxtaan mu jëm ci diine lépp lu ñuy jëmmal mu jëm ci diine ñoom suyoox yi nekk fii asaar lañ ci yor ci wàllu jàngalem tawhid waaye maliki yee la ëpp ci ñoom waaye itam nag moom lañ gi sax waaye ni ki noonu bu dee ca tasawuf moom lañuy ilmu suluk boobu la ñuy jëlee kon relation bi am ci diggante euh, suufi ki ashariya ak suufiya mënees na ca tënk loolu bu ko defee incha allah ñu jë ñu dugg nag ci relation bi am ci diggante malikiya ak euh, suufiya bu dee maliki yi ñoom muy muy muy kuréel boo xam ne ni muy mazhab boo xam ne mazhab bu sunni la kenn la ci almadahibul arbaa assunniya wa malikun wa ahmadun wa shafii abu xanifata al imamu taabii ala huda min rabbihim wa rahma wal ixtilaafu nimatun kuréel la boo xam ne ni masab bu leer la boo xam mi ngi euh, mi ngi mi nañ ñi am istiqlaal ya ci atum ñaareel ma ca gàddaay ga li gën a ëpp ci ay xalaatam nag mu itti woo ci jama jox jox jox jox yitte lool amalu ahli madina waaw man ci ay jamono am na takk-takk boo xam mu ñu ko ne boo boolee mboolem julli yëpp cinq pour cent yëpp ñu nekk ay maliki muy mazhab boo xam mazhab bu am doole la boo xam dafay nekk mazhab wasatan mu'tadilan bayna ahli ra'yi wa ahli ahli hadis dafa dafa dafa nekk ci diggante bi de hadis wéere mooy sama mazhab waaw ngir ngir bari gu muy bari lu muy wéeru ci hadis rek. imam Malik da daan sukkandiku ci xadis yonent bi lu bëree bëri waaw di xoolit bii abi environnement amalu ahli madina waaw moo tax lee léeg ñuy wax euh, imam dafa gàc ci nangam ko li ngeen taw wa tawaqufu ci fir kay maxt kay maxt boo demee ci xalil loo xam ne usulu mazhab bi maanaam da koy teere ba napp boo demee daa san nañ bu njëkk dañ ko daan def mu def ci tawaquf comme der boobu nga xam deru deru kay maxt la léegi ñoom malik yi kon li ëpp ci seen kii mooy digg doomu ci diggante ahli ahli xadis waaye tam mu sukkandiku ci kaw xadis lu bari bari xool it environnement bi moo tax euh, bari na lool ci biir mazhab bi ay muallama ak muhaddisoon yoo xam ñi ngi jëlee xadis yi maanaam euh, ñoom dañu xool ñoom euh, malik malik dafay xool bi abi alxijaas bi nga xam ne ci la ci la lu ëpp ci borom xam-xami xadis yi nekkoon borom xam-xam yi doon fa dund ñoo xam ñoo jëlee hadis ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadis ñoo ko jëlee ci sahabatu kiram doon ne sunna ci ñoom ñoom kon mazhab boobu muy mazhabu euh, ahli mad mazhabu ahli xijaas di mazhab boo xam ne mazhab bu siiw la di mazhab boo xam ne dafa sukkandiku ci kaw alquran ak sunna di école boo xam ne nii dox na yàgg na lool ba mujj am ay écoles yu bare bari ay madaris di ay di malikiya madaris bi am na madrasa madina madaniya madrasa bu ekkoon bu nekkoon madina euh, madrasa boobu ay benn benn nekk nañ fi ci ci ci élèves yi dongay Malik ci dongay Malik bokk na ci lu Ousmane ibnu Isa ibnu Kinaana kon Kinaana ci la bokkoon te day day école boo xam ne éclosion da ngay dem ba mu yàgg ngay gis foofu ibnu euh, lenn ci comme ibnu Majusun yu mel noonu ak Mutarraf ibnu Abdillah al am na école bi ñu tudd madrasa madrasa misriya waaw muy école boo xam ne ni mooy mooy école bu maliki bi njëkk a sond sos ginnaaw madrasatu madina mooy eff ginnaaw yoo xam ne loolu rek ci effort yoo xam ne def nañ ko noonu la maliki yaatu na muy dem ba mu nga gis madrasa iraqiya ya nga xam mi ngi nekkoon basra eh, lu ëpp ci eh, ci dongay mari nekk lu mel ne abdourahman ibnu mahdi waaw boo demee ci misri bu mi ngi ay jël ibnu xasim boobu si boobu madrasa maghribiya nga xam ne foofu Euh, école la boo xam ne yaa ngi fay muy mazhabul kofiyin waaw nga bokk ci élève yi yu imam Malik am fay am fay dongo yu ko topp muy école boo xam ne bu siiw a siiw la daf mel ne Ali ibn Ziyad boobu bo noonu la école yi gën a madrasa andalus andalusiya ba tey ci mazhab Malik dafay école bu yaatu yaatu ki ko fondé foofu mooy Ziyad ibn Abdurrahman al-Mulaqab Shabtun moom moo ko muy eh, muy école yu tasaaro yo xamné ni lu bari ci borom xam-xam yi dañoo intima ci mazhabu malik muy mazhab bo xamné mazhab bu siiw la bu am doole la maliki bubu nak am na relation bu ak tasawuf bi dalili eh, li ñi ñu waji andi ñepp bo xolé ay ay fuqaha lañ ay maliki lañ waye nak ñoom tasawuf yoonu tasawuf lañ soobu waaw nga xamné kon buñu jappalé rek ay nit ñu xamul dara ñoo ñoo ñoo nekk ci biir masaba ay ponkale ay kàngam ay ay kàngam yu mag ñoo nekk ci biir mazhabu mu ñu ñoo nekk ay ay borom xam-xam bu nekk ci kuréel tasawuf boo xoolee kon am na ay borom xam yu bari yoo xam ne nii ay fuqaha lañ ay malikiya lañ waaye nag ñoom yoonu tasawuf lañ soobu xam ne ko bokk na ci ñooñee Ahmad ibnu Ibrahim ibnu Ahmad ibnu Safwan waaw kooku ñu ko di koy jàkkan ñoo daa koy jàkkan jàkkantele Aba Jaafar am ñu ko Ibnu Safwan ba tey waaw bokk na ci ñooñe nga xamne ay maliki la way dañu sóobu tasawuf ku melni ahmad ibn husayn ibn ali aziyat al bokk na ci ñooñe batay ahmad ibn muhammad ibn abdulkarim as-sakandari ku ko ibn ataillah boobu maliki la way ab sufi la bokk na ci ñooñe ahmad ibn maat abul abbas التجيبي الاسكندري المعروف بالاقليسي بوكو تي لا بوك بوك نك ني ابراهيم ابن يوسف ابن محمد ابن دهاق الاوصي bokk nañ Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Obayd Obayd eh, ibnu Mahmoud bokk na ci ñooñee Abdul Aziz ibnu Qasim ibnu Hasan Arba'i a tunisi ngelaw muy mbooloo mu bëree bëri yoo xam ne ay maliki lañ waaye neexutu lim ndax bokk nañ Muhammad ibnu Yusuf ibnu Saada Muhammad ibnu Ahmad ibnu Bakar ibnu Yahya yëpp ay ulama lañ nga topp Yusuf al-Qadi Abul Walid ibnu Abdullah jénga nga topp ko di wéy di wéy muy Muhammad ibnu Muhammad Abu Abdillahi al-Abadi ñu ñëpp ay malikiye lañu waaye boole ca nag nekk euh, nekk ay ay nekk ay sofiye ay maanaam ay malikiye ba noppi boole ca nekk ay sofiye léegi nag relation bi am ci diggante euh, diggante boobu nga xam ne léegi ñoom dañ koy dund ba noppi doon ay sofiye teg ca boo ko wàccee ba ci suñu gox bi ñu nekk loolu moom daanaka mënees naa wax day neex a wax. suñu ay mayi fi nekkoon yépp di ay borom daan jàngale diine la ñu jàngum Malik lañ ko jàngale waaye tam nag ay tariqatu suluk la ñu yor moo tax ñu yor ay daara di di jàngale waaye yor ay daara di tarbiya di tàggat mooy yuallimuhum wa yuzakkihim kon ñoom eh, bi teqaliwun woon diggante eh, diggante maanaam da eh, njàngum kese njàngum dañoo boole diggante jàng ak suluk dañoo boole diggante jàng ak jàng mi mooy lan jàngal la diine ba nga xam ko waaye tàggat ko ci say cër ba nga miin ko su ko defee ne tàggat ko ci say cër yi moo dugal ilmu suluk di ilmu tasawuf kon boo xoolee ci biir cadre maliki yi it da gis ne ñi ci intima ñëpp nekk taqalit malik ndax bu dee ci sowu jant li fi ëpp dañoo taqalit imam malik waaye ñooñu taqalit imam malik ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp boo ko xoolee ñi ngi jël euh, tasawuf mu nekk seen ndax euh, li ci naan islam yi Sénégal islamu suufi ndax bi mu fi dugg euh, ci tas an tariqi tasawuf la fi la fi jaare gis nga boobu am na koo xam mi ngi doon laaj ci ay jamono Cheikh Ahmadou Bamba ci benn rajo muy rajo BBC bi ko waa ji tontu di ko ndax ba bay émission bi nga tund bay na Saïd wal Mujib pour dëgëral la ne ñoom li ëpp ci suñu kilifa réew yi yëpp dañoo gis ne. Euh, lëkkaloo bi am ci diggante maliki yi ak suufiya tax na ñoom ay maliki yoon la ñu doon waaye nag ci fiq waaye ay suufi yoon la ñu doon teg ci ngir lëkkaloo bi jar seen dafa de histoire bu yàgg-yàgg mi ngi naan almustami Abdul Qadir Bousso mi na Sénégal ki ko doon lay Abdul Qadir Bousso la tudd فقد طلب نبذة عن حياة الشيخ أحمد بامبا مؤسس الطريقة المريدية في السنغال تقدم لنا إجابة الدكتورة نادي أندي أيضا يقول داني إن الطرق الصوفية كالقادرية والتجانية والمريدية لعبت دورا في نشر الإسلام في أقر غرب إفريقيا في أقطار غرب إفريقيا وفي بلاد السنغال انتشرت الطريقة المريدية بشكل خاص والشيخ الذي أسس الطريقة المريدية هو أحمد بن محمد بن حبيب الله الذي غلب عليه اسمه أحمد بامبا وكان الشيخ أحمد بامبا من أشد الأعداء للإستعمار الفرنسي نقول لك lépp di confirmeel ne maliki ya am na lëkkaloo ak euh, tasawuf ndax suñu suyux yëpp loolu lañ leen xamee kon nag loolu euh, lam ci lañ ci war a tiiri ci ay ay ay mooy lii may wax kon su ma doon résumé samay wax ci tënk bu gàtt boo xam ne ni duñ bëgg muy gudd ndax boroomi xel ngay waxal te ñoom it euh, la ca manqué dañ ko mën a matal liñ fi mën a tënki daal mooy ndekete yoo kon achariya am nag lëkkaloo ak sofiya ndax andi nañ ci firnde ci jamono ju yàgg ñi ko ñi doon ay asaira mu nekkoon ba ba boole ci nekk ay suufiya ci ba wàcc ko ci suñ suñ dëkk bi suñ suñ réew suñu suñu gox bi yi ñu nekk. waaye itam saxal nañu ci ne maaliki yi ndekete yoo am na lëkkaloo ak tasawuf ndax andi nañ ci jamono yàgg ne ëpp ci mbooloo mu bari ñoo xam ne ay maaliki yi lañ doon waaye boole ca nekk nag ay suufiya teg ci wàcce ko ci suñu réew mi ñu nekk kon buñ buñ xam ne. Euh, bi bu fekkee ne nit ki dafa bëgg dafa bëgg a séparer diggante tasawuf ak yooyu dafa mel ne loolu kalaam faarix lañ koy jàppee ndax loolu mënta nekk ndax histoire moo ko tënk taarix moo ñu ko jàngal boroom xam-xam ñoo ko dund bàyyil ñu ko fi te loolu ñu ngi ci doon teg bët kon ñu lu mbokki rek lañ doon fàttali di ko nafar ak yéen tey incha allahu taala lu ci mata di ñu ngi koy jégalu bu baax a baax lu ci mat ci yàlla la jóge ñu ngi yem la foofu xam naa bàyyi mbokk yi nga xam ne yàlla dogal na seen ali wa xóot ñu gën a andi lu ñu mën a andi lu ëpp lii ñu ngi yaataatan noppi incha allah di fas yéene jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh